waxoon ne faayil ak fi'lu dañuy bokk dëppoo ci góor wala jigéen léegi-léegi nag faayil bi di jigéen mu dagan rek ñu jigéenal fi'lu bi wala ñu góoral ko ñeenti anam loon mooy faayil bi nekk isim du feeñ tàmmu cëru jigéen wala fayil bi nekk isim bu feeñ waaye sasut ci fenlu ba dina na cëru jigéen da leen séparé na bu mu nekk illa wala fayil bi nekk fayilu neema wala bisa wala bi nekk jëmu taksir yooyu dafay dagal nga góoral leen wala nga jigéenal leen waajibu fa muy nag fayil ak fenlu dëppoo ci góor wala jigéen fi maada zalik mooy loolu ñeenti anam yooyu loolu masala ñaari masala ihdaahuma benn ci ñaari masala yooyu al muannas mooy lu ñu jigéenal al jigéen ak dëgg-dëgg al yu taanisi jigéen ak dëgg-dëgg mooy boo xam ne am na cëru jigéen allazi mooy ba nga xam ne lay si nekku mafsuulan duñu teqale faayil bi jigéen la tey sin bu feeñ la moo feeñ la bu ñëw sësaloo wala waaqeen tabbiwut baax da neex ma gën naa neex ma aw bi sa foofu moom faayil bi bu dee jigéen faayil bi foo nga jigéen ko naa wa is qaal ba mu waxee imraatu imraana jigéen imraan imraatu jigéen la kooku jigéen dëgg-dëgg la mook fenl bu ñëw sësoroo dara séparé wu leen e, te du fenl lu neema wala bii sas kon imraatu ba muy jigéen muy fenl bi fenl bi foo nga jigéen na mu nekk moom fenl ba damiran di damir muttasilan bu bu dee bu jokk la moom fenl bi bu dee jigéen la bi foo nga ko ka xawle gi ne gis wax ashamsu jant bi talaat fenk na bu talaat rek nga mën a wax ndax faayil bi hiya la te dafa jokk mawaatinu xasbi faayil barab yi ñuy xasabee faayil wa kaana nekkoon azahiru du feeñ annahu ne li am ba xam jus dana dagan fii nax wi ci lu mel ni maa qaama taxawul illaa hindu lu muy hind alwajhaani ñaari anam maa qaama illaa hind maa qaama illaa hindun li feeñ mooy maa nga ko jigéen wala nga góoral ko ndax lan ñun la am na cëru jigéen waaye nag sësul ci fenn bi waaye te dana lëng attaani su jigéenoon loolu mooy li feeñ kama fi xawlika sa wax xadara teew alqaadi atakar bi imraatun jigéen imraatun comme que sësul ci xadara ma ngaa jigéeneel fenn bi wala nga góoral ko waaye li gën a lëng mooy nga illaa hindun tamit noonu la dafay mel man nga ko góora wala nga jigéenal ko waaye li a la nga mooy nga jigéenal ko fekk demeewul noonu maa qaamat illaa hindun foofu góora rek nga koy def ndax hindu du faayel ba lañ faxatafee mooy lañ settee ca moom mooy mustasna mi ne kooku mooy faayel bi dëgg-dëgg ci saan mooy maa qaamat taxawul ahadun kenn illaa hindun lu may hind illaa hindan nga def ahadun hindu remplace ko kon su boobaa boo xoolee hind comme que nekkul faayil dëgg-dëgg te faayil bi góor la foofu moom da ngay bàyyi taaga doo fa dugal taa moo tax walakin waaye ñooñ noxaat yi aw ci lu mel noonu tarka taa i bàyyi taa fi nasri bu dee da ngay wisar booy way nag mën nga faa def taa nekk maa qaamat illaa hindun ndax loru woy wi mais bu dee du way moom foofu nga dagg taaga ne maa qaama illaa hindun lenn ma baada illaa ndax lu ñëw gannaaw illaa lay sa nekkul al faayil di faayil fi xaqiqati ci dëgg-dëgg way na maamu nag moom badalun badal la min faayilin ci faayil muqadarin buñ nattale qabla illaa njëkk ilaa wa zalika al muqadaru loolu ñu nattale foofu moom al mustasna min mooy lañ settee ci moom oo lañ settee muzakkarun dañ koo góoral fa li zalika loolu tax zukkira tudd nañ al amilu aji jëf ja mm, dégg nga mm, wa taqdiru nattale ga mooy maa qaama taxawul ahadun kenn illaa hindun lu mooy hind أحد من الرفان يحذفكو كن عامل بي فاينم دو هند دك دك ونو رفو بنكو يقولو لن رفو فاين دقورو بنوضر وهذا لي أحد المواتن موين شبر بأربع ينينت التي يخم يتردد خياس فيها كمو حذب الفاين حذف فاين كن bu dee mustasna minhu bi la nga settee da nga koo xasaf mustasna minhu ko xasafee su ko bi mooy la nga génnee ca mbir ma maa a taxawut ku taxawut ahadun kenn nga génne ci hind ne illa hindu kon la nga génne mooy hindu mustasna bi ci la nga ko génne mooy ahad kenn bu fekkee da nga xasaf faayil ba mustasna ga تقوى يفعل فاين فومو فاين نقول حسب كيلور ما قام إلا هندو هنا أنا قلت دوك واي في دل من قفى حسب فعل دل وثاني جاي فعل المصدر مصدر لي لقي جاز فعل كقولي كقولي تعالى أو إطعام في يوم ذي مزغبة نكي ملال ku يتيما جيرم دا مقربة أو aw قمغة يتيما مفهوم إطعام لا أو إطعامه ولا ملاح المواجي يتيما زي مزغبة يتيما كون بوقو لي فاعل أم دنكو هذا من هوغي مرة تقدرون تلو أو ولا ملاح يتيما جرم أو غير فعل فر إطعام ما توب على فك جي جيتو ما على مرفوع مرفوع في من جار مجرور أجي إطعام زي ناطرة يوم مجرور ولا مرتدي عليها دينغ لأنه من الأسماء خمسة مزغبة مضاف إليه يتيم مفعول بتعمل منصوب ذا نعت لك يتيما ونعت المنصوب منصوب ولا مدنس ألف لأنه من الأسماء خمسة مقربة المضاف إليه كن أو إطعامه أو إطعامه ولا منهل يتيما ندق هو كن فاعل مصدر فاعل مصدر mën nañ ko xasaf masdar nag bokk na ci ñuy jàngale dafay am feelu faay dafay am faay rek ma fon wasaal suñu tal fi baabi niyaaba naay bu faay moom dañuy dagg feelu ba nekk wa qudiyal amru feelu bi boo ko tëggee moom ni li majhuul dangay dagg wa qudiya dogo def nañ al amru aslu cosaan la wala alam wa qadaa du attana allahu yàlla al amra mbir mi su ko defee dagg allahu ga <laughs> nga xam nañ ko al amru mafoon bi ba ñëw nekk wuutu waraabi ñeenteelu faayilu afxil fi taajubi ci yéemu isa dalla bu tegtale ale ci moom muqaddamun luñ jiital misloo comme moom faayilu afxil goo xam ne dafa ñëw pour wane ak xéemu fekkee faayil ba am na lu koy tegtal su boobaa mën nga ko dagg xawli taala ni ko wax ak ñoo mën a dégg ñoo mën a eh, gu ñaareel gi mooy faayil abusir dañ ko xasaf dégg nañ ko ci asmi bihim foofu si fa ñu xasaf bihim bihim min asaani ci bu ñaareel bi di dalaalati awali ngir tegtal ak bihim gu njëkk ga woowa loolu fii moo dee rafi mu ngi ci bërëb rafa alal faayil nekk faayil ci mbooloom borom xam-xam yi asmi fal amru la moom la fata faayil bi anta bihim jaar majur ayu ci asmi am ñu ko defee noonu dégg nga ñu ne déedéet asma xel amru moom ne ala sukkoon bàyyi gar fujar zaid la moom damiru mutasim la ala sukkoon fi maanaam fi faayil ñu asaf bihim ko kon faayil bi mën naa nekk anta mën naa nekk bihim kon faayilu masdar ولا نائب فاعل فاعل بنت من لما جول فاعلم ولا فاعل بنت افعل افعل تانجو فاعلم بو نعمل لكو مجيتو ولا بوك مستثنى بو تخوي تخوي فاعل يجب من نيو حسب فاعل فوف لول نقلو قياس لا والاصل لا تسان ان يلي موي ميغو ان يلي موي ميغا عامل واجي جفجي لا تسان موي فاعل نيو فاعل نيو waxat yit axaru léeg-léegi mu mujj moom faayil jawaasan ci lu dagan léeg-léegi faalu ñëw ma foonum ñëw faayil dooru ñëw léeg-léegi mu dagan mooy bu amul benn lënt bu ci nekk du andi lenn lu arab di aaye na ko comme wala xat jaa dikkal na aala firawna ñooñ firawna an nuzur waarikati wala xat jaa na an nuzur waarikati aala firawna loolu moo doon waaye boo xoolee aala gay ma foonum bi moo jiitu nuzur gay faayil moo mujj aala ma bi moo sës ci faalu bi kii bi ñëw ndax lii benn lënt amu ci ku ne xam naa li ñu bëgg a wax mooy waarekat yi dikkal na ñoom Firawna ak wax ji wax ne wa kama ata comme nu mu dikkalee rabbahu boromam Moussa Moussa ala qadrin ci yàlla maanaam dafa dafa dikkal boromam daal ko dikkal danañ wax baytu boobu ku ne xam ne nekkul ne yàlla moo dikkal Moussa Moussa moo dikkal yàlla kon su fekkee da nga ne ata dikkee na rabbahu boromam Moussa Moussa سواء أتى ديكنا موسى موسى ربه برمم فعل بسست فاعل بدنا باخ مفعول بمجنو waaye fii mafoon bi moo sës ci fin bi faayal bi mujj baax na ndax damir bi ci rabbuhu dafa dellu ci loo xam ni moom moo war a jiitu ci garaat di moo mujj ci baat damir bi ci Moussa la dellu waaye Moussa moo waroon a jiitu ci garaat di na moom la mujj tudd waaye moo waroon a jiitu loolu arab nangu na ko aaya amul for waaye su fekkoon ne Moussa nag daf di ma xoolum bii si misaal ne moo war a mujj moo mujj su boobaa nag bi mënu cee dellu moo tax wujuban léegi-léegi ñu jiital ma foonum bii ci lu war xam nga yii ma la wax moom dafay dagan rek mën ngaa wala xat jaa nuzur ala firawna bu dul woon alquran mën ngaa wax ata Moussa rabbahu loolu mën naa nekk waaye léegi-léegi jiital maf'uulun bii dafay war su fekkee boo jiitalee faayil lu arab di tere dafay am naxoo comme wayjib talaa bam nattoo ibrahima ibrahima rabbuhu boromam yàlla moo ko nattu boo ne wayjib talaa rabbuhu ibrahima boo xoolee huu gi ci ibrahima lay dellu te ibrahima moom mooy maf'uulun bii te moo mujj te moo war a mujj demir dellu nag ci loo xam ne dafa mujj ci baat baat bi moo mujj te moo war a mujj ci mooy mooy rut ci garaat loolu arab nangu ko war a doo mën a wax isibtala rabbuhu ibrahima da ibrahima moo nekk ca mujj demir bi dafa dellu ci yàlla ca kanamam te moo war nekk ci kanamam loo mun nekk loolu war a kon fii dafay war nga jiita ibrahima ne wa isibtala ibrahima rabbuhu ndax demir bi dellu ci loo xam ni mujjut mujj ci garaat waaye mujjut ci baat kon dellu ci loo xam ni moo mujj ci garaat waaye mujjut ci baat wala moo mujj ci baat waaye mujjut ci garaat nangu nañ ko amma ata rabbahu Moussa moo mujj ci baat waaye mujjut ci garaat parce que moo waroon a jiitu ndax mooy faayil wa moo mujj ci garaat ndax moo waroon a mujj ndax mooy ma foon bi waaye mujjul ci baat baat bi moo jiitu loolu arab nangu na ko waaye demit dellu ci loo xam ne moo mujj ci baat mujj ci garaat nit nga ne ibtala rab rabbuhu ibrahima huu gi dellu ci ibrahima te moo mujj te moo war a mujj loolu la arab nangu kon lu mel noonu bu naree am mafoon bi dafay jiitu ci lu war ak wax gi nga wax ne dara ba nii dóor na ma zaydun kooku mafoon bi dafay jiitu ndax lan ndax boo jiitalee faayil bi su boobaa demir bu mën a jokk nga teqale ko dafay am ni ki dara ba nii dara ba zaydun teqale damir tam waroon a jokk dafay am te loolu arab nangu ko kon loolu su naree am rek loolu arab nanguwul su naree am rek foo nga jiital mafoon bi wa qad yajibu dana war taaxiru mafoon mafoon yéete yéexe mafoon anil fi'l ci fi'l faayil nag wax nañ la mën naa njëkk mafoon bi mën na koo mujj waaye du njëkk fi'l bu mukk moom mu ñëw ci mafoon bi ne wa qad yajibu dana war taaxiru mafoon yéexee ma foona ni fenlu ci fenlu bi ma moom mën naa jiitu sax fenlu ma jiitu faayil léeg-léegi mu jiitu faayil ci lu dagan léeg-léegi ci war comme ni ñu ko jàngee léegi-léegi moom ma foon jiitu fenlu waaye du jiitu fenlu kat sa wax darabtu dóor naa zaydan zayd maa ngi fii sax waxu maa ngi jiitu maanaam mujj lay wax léeg-léegi dafay war ma foona bi mujj fenlu dana koy jiitu ga waaye léeg-léegi mu war mu mujj mujj fenlu mu mafoon bi léegi-léegi mu wax mu mujj fenlu maanaam fenlu bi ñëw fenlu bi ñëw mafoon bi doo ñëw ka ni ki darabtu dóor naa zaydan zayd dégg booba booba mafoon bi dafa war a mujj fenlu bi hmm. dégg nga ndax lañ bañoon mooy ci am boo ne dara ba dóor na zaydun zaydu iyaaya man demir bu war a jóg nga fëccale ko dafay am dara ba zaydan iyaaya man dóor naa zayd demir bu war a jóg nga fëccale ko dafay am foofu darabtu zaydan ak maa axsana zaydan mun a wax zaydan maa axsana mun a wax maa zaydan a wax maa axsana zaydan iyaahu te bi dafa war a nëbb ci kon doo ko fasal ma axsana zaydan rek foofu mafoonum bi moo war a mujj kon mafoonum bi dafay mujj fenlu ci lu war fekkee mm, boo ko jiitalee mujj it fenil bu fekkee boo ko jiitalee mm, dégg nga lu arab nangu dafay am ni ki séparé damir bu waroon mën a jóg wala lënt dafay am ni ki dara ba dóor la Moussa Moussa Insa Ah, fii bu nekk ku nekk mën naa dóor ku nekk mën nañ koo dóor te ñaari baat yi leen a maas bu doon mën nga leen a maas ni ki dara ba dóor nag zaydun zaydu insa insa foofu moo jiitu fenl ma foolum bi parce que zaydu nga boo ne dara ba dóor na zaydan zaydan insa dañu xam ne zayda ga jiitu mooy ma foolum bii waaye dafa jiitu fenl bi fii insa mooy fenl bi ndax maas nga zaydu nasab waaye bu fekkee mënoo koo maas nga ne dara ba Moussa insa te Moussa mën naa moo dóor insa mën naa moo foofu fenn bi nga war a njëkkee teg si fenn bi teg si mafoon bi Moussa mooy dóor Insa waaye boo nee Insa moo dóor Moussa nga jiital Moussa dafay indi lënt nit ñi duñ xam ku dóor ndax mënoo leen masque mënu leen séparé maanaam mënu leen séparé foofu kon fenn bi dafa war a jiitu ci lu war nga ne dara ba Moussa Insa ñu ne Moussa moo dóor Insa waaye dara ba Moussa Insa ne Insa moo dóor Moussa kooku kenn mënu koo xam kenn du xam ban mooy fenn bi ci masque kenn du ko xamit ci maanaam. ndax ku nekk mën naa dóor ci ñoom ñaar te masque yi mënu feeñ bi xilaafi nax wa lu mel ni addaa nàmpal na asuxraa ku ndaw ki al kubra ku mag suba ku ne xam ne ku mag ki moo nàmpal ku ndaw ah, mooy arda nàmpal na al kubra ku mag ku ndaw ki mën ngaa gis asuxraa gay ma a feeñal waaye maanaam mën na leen a feeñal ndax xam na ne kuy faayal ba mooy kubra ku mag ki mooy nàmpal kañ nàmpal mooy ku ndaw ki سواء من الأردات الكبرى الصغرى من غادي يصير مفهوم بين الأردات الصغرى الكبرى ما ماسك من لين رانجرة وهي معنى من لين رانجرة وقد يتقدم درجيت مفهوم بين العامل تأجيج في جمعي فعل بجواز نشروا لأنه فريقا هدا فريقا هدا هدا جن فريقا أكرر لكن فريقا مفهوم بين موجود فعل بس أدور بين لنت فاعل بجيت فعل مفهوم wa wujuban léegi-léegi maf'ulun bi jiitu fi'l bu naxwa ayyam ma tad'u ismu shart la ismu shart mooy nekk ci commencement jumla kon mënul mujj wax tad'u ayyam ma ayyam ma tad'u rek nga mën wax ismu shart moo nekk ci commencement jumla ga su boobaa kon moom moo war a jiitu ci lu war maf'ulun bi la waaye moo war a jiitu ci lu ci lu war kon mafhum bi dana jiitu fi'lu ci lu war dana jiitu fi'lu ci lu dagan comme ñooñu ko ñooñu ko jàngee wa ida kaana bu nekk al fi'lu fi'lu bi di ni'ma ak bisa fa fa'il fa'ilam imma benn mu'arrafun dañ koy def maarifa bi al ci al al jinsee gi tekk xeet ni ni'ma baana al abdu jaam ba xeetu jaam dañu andi maxsuus ba ka ngay tagg nag ne ayuba lañ ci nam innoona ko awaabun ko mën a dellu ci yàlla kon fa'il bi dafa am al al gii jins lay fi tekki xeeti jaam yi dugg nañ waaye ka nga ci namm na mooy ayub aw mu daafan wala al wala lu laaf li maa yéñee la nga xam ne moom fii al nekk na ci wala faayil ba nekk lu laaf lu am al ndax woo wala nee ma baax na daarul mu taqine këru ñu ragal yàlla gis nga daaru mooy faayil bi waaye dafa laaf lu am al aw damir wala damir mu saturun bu nëbb mu fasurun buñ firi bi tamisin ci tamis mu taabixin bi aji dëppoog lil maxsuus ñeel lañ kañ jagleel tagg wala ngàñño faayil bi it mën naa nekk damir bu nëbb ñu wutal ko tamise ràññale ko mu dëppoog tamise ba ni ki bii sa bon na li zaalimi na ñeel tooñkat yi badalan ci wécce ay bii sa bon na xoo moom badalan ci wécce xoo bi dégg mu satir la ñu firee ko nakira gañ na sab ci gannaaw mooy badal bii sa cosaan li mooy bii badalu badalan léegi nag badalan gu ñaari woo dafay wane xoo giñ moom moom ñoo bokk benn maanaa rek biisa li zalimina badran biisa bon na euh, al badalu gàcce ga zalimina ñeekoon ko badran bon na huwa moom huwa gi nag ban baat la yore tamit gi moo koy ràññee rek na sab biisa al badalu badran kon faayilu biisa mën naa nekk demir gu nëbbu ñu firee ko nekk rek guñ na sab gannaawam loolu mën naa nekk niama rajulan zaydun maanaam neema rajulu rajulan maanaam doo tudd ko faayil ba damir bu nëbb lay doon tamis bi mooy laaj ñu def faayil ba lan la war a doon neema zaydun rajulan dégg nga mën naa nekk إن أريد الإسلام ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته